Assalamualaikum, patriote yi Sénégal <laughs> patriote yi Sénégal <laughs> réewum hypocrite lañ koy xam ma hypocrite dama ne man de wax dem gamuk Aziz Ndiaye moo ma gënal dem gamuk Ahmed Khalifa Efori effort yi ma gis de gars yi di ko daj ci gàmmuk Aziz effort yu ko raw waroon nañ ko daj Ahmed Khalifa Niass parce que Aziz Ndiaye dama defe ne day kumba mu amul nday rek ta Ahmed Khalifa Niass di kumba mu am nday Ahmed Khalifa Niass mi nga xam ne chef religieux lay woowe boppam Aziz di woowe boppam ab taalibe Ahmed Khalifa Niass ne boroom xam-xam la mag mu baax jur ko wax dëgg yàlla mu am rakk ju baax aussi mu dajale nit ñi ci guddig yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen a war leen a wax ci yàlla ak yonent bi waxu leen ca mu di leen wax waxi awra tey dama ne débat bi foofu la waroon a nekk waaw ñii ñi ñi ñiy xeex ñiy xeex ndonoy mag ñi ak di xeex ndonoy yonent bi ak ndonoy yàlla tey jii damaa jàpp ne dana waroon a def mars ngir euh, euh, euh, jëf ju bon ji nga xam ne Ahmed Khalifa Niass def na ko bi ma gisee ci mbir mi nag ku mel ne Aïssatou Diop Fall di attaqué Aziz Ndiaye calaane laa yëf yi ak naafiq ngi ca dafa am eh, saaru débat yoo xam ne su jógee am na ay personnes yoo xam ne boo leen ci gisee ñuy wax rek booy boo nga ritale ku mel ne ñoom satu Juutal Faal mais moom nee leen ko Maam Njaay Savon gi ñëw Aziz bul tontu Aysatu Juutal Faal boole koog Maam Njaay Savon rek moom du def ak moom 24 heures te tegu ko palaasam waaye dama ne dem gàmmuk Aziz Njaay moo gën dem gàmmuk Ahmed Khalifa Niass loolu mooy dëgg débat bi fu mu waroon a nekk mooy ki nga xam ne kilifa diine la woo nit ñi ba nu ñëw mu leen wax waxi awra di leen jëwloo nit ñi di leen jëwloo nit ñi di leen wax waxi awra di leen wax waxi ñàkk kersa dama ne Aziz Ndiaye amul bàjjan ci réew bi waaw moo tax ku nekk di ŋaw ŋawee Aziz Ndiaye te bàyyi Ahmed Khalifa Niass songu leen Ahmed Khalifa Niass loolu mooy dëgg